jàmm di wéy di ko sàkku yéen di leen jaajëfal di kontaan yéen bu baax a baax di wax nag ñu ngi jéggalu képp koo xam ne gëjoon nga ñoo gis di wax namoon nañ leen waaye xam naa ne yéen ñu raw ñu ngi jéggalu ñëpp nag xam nga rek temps am ci leneen lu nekkoon rek moo tax ngeen gëjoon ñoo gis waaye nee naa la min ngeen ko ci site bu mag bi nga xam mooy Actu Banlieue Actu ngeen ko ci ñu defee émission boo xam làmb tey ñu ngi fii Géejawaay seet xamante ne bëre woon na bu yàggul diggante mi nga xamante mooy Malick Ndiaye transfert fu muy Bou Siteu xale bu bëri coow xew macha allah nee nag Ousmane dafa bëri ak Malick Ndiaye fu daan ko konko <laughs> konk mooy kaa bi waaye lépp dañ ci waxtaan ak moom tey nee naa la Ousmane moom lay lamb jum naa la nag ah veer yi moo fi jaar macha allah kenn du moom moo jën mu rafet rek jox ma ne ma demal def sa émission damay kontaan Ousmane ci ñi nga xamante ni macha allah dem naa durant un mois defuma émission waaye tout le temps ñu ngi may woo di ma nemmeeku di xool ci lu ma di woon dara am ci activité yu ma nekkoon loolu rek moo tax mais ñëwaat naa ci kàttanu yàlla bëggee naa leen bu baax jaajëfale Ousmane danga may topp rek ma xool ki nga xamante ne naa la mooy Bour Siteu bëri woon bu yàggul contour Malick Ndiaye 37 fu nee naa acte banlieue la voix de la banlieue saa su nekk fii lay xëy Ousmane topp ma rek ma xool champion bi nga xam ne la pour l'instant moo lëmbee jamono naa la Ousmane moo nekk li nga xamante ne mooy caméra waaye Aya nag nee naa la saa su nekk mooy doxal géejawaay la ñu ñëw Ousmane gis nga ni may jéggee feeraay <laughs> ay suma fi daanoo ayca <laughs> ndeysaan nee naa la du mën a ñàkk Ousmane te dañoo ñëw fii géejawaay sa si fi xale boo xam ne bëri woon na bu yàggul muy Bou Siteu adversaire Malick Ndiaye xale bi nga xam nee naa daa dóor mbër mi daan ko konk loolu lépp dina ci waxtaan ayca yaakaar naa ne mi ngi noo toog ci li nga xamante ne mooy gars yi ayca <laughs> bu xale bi xew ci jamono bu Siteu waaw fay nañ la ayaa ginnaaw biñ ñu sant yàlla julli si yonent bi di sant sama ñaari waajur di sant waa Géejawaay bu baax. di sant waa Massa Ndiarème bu baax a baax fi ñuy defee émission bi nii fii laay dawalee saret waaw man fii laa am tey jii bu Siteu bu demee fay ko ay millions tamit fii laa am waaw mënu ma dem man dara mënul fukk sam bët wala ma fàtt samay nitu démb. te parce que lu yàgg dëgg la fii laa defee lépp gis nga man boo ma ñëwee fii nga m fekk ma toog ak mafia bi gars yi. xam nga di bëggee gaa yëpp di bëggee ñoom yeeyaa jimbo xam nga ñoom njaga ali bari si biir xam nga ñoom abdallah ak ñoom gaa yi lumbu xam sama gaa yi li ma lay wax maanaam man dama bokk si njaago yi ay lumbu xam nga ay ñoo xam ne nii ay njaago la nek lañ nekk moo tax xam nga rek di bëggee njaago yi bu baax a baax a baax waaw di bëggee gaa yëpp ñoom risque xam nga gaa yi mafia bi wara boo limee da ngay jóg mais gis nga gaa yi lépp lu ma xew dañ ci teew waaw kon man ñii mënu ma leen a fàtte su ma demoon bay fay ay millions di war ay 4-4 teewul fii laa am waaw xam nga rek maanaam damay jiital sama kàddu quoi pour ëllëg te parce que xam nga rek waaw maanaam ñun moo <laughs> loolu yaa ma gën kenn du wax lef mais ñun fii nii lañ am fii nii mbëri si bëri yi ngay dégg yu bëri fii lañ génnee fii lañ toppee saako jor xam nga rek moo rax ñun mënuñu bàyyi fii waaw ñun moo loolu wallaahi ñun ay jàmbaar lañ ñun xamuñu ay ànd ak nit nii ba àdduna neex nii nga yor ay birig rek seey dagg action. bari ci mbëri de woor bi woor bi bari na ci mbëri. waaw woor bi dafa moom la fa laay wax ak yow moo tax tey déggoo la man déggoo la man bu ma demee bay fay ko ay millions di war ay 4x4 su ma ñëwee sama 4x4 fii laa ko si biir gars yi laa koy gaare ñëw ceene man lii am. waaw maanaam nit ñi dañuy fàttaliku seen démb waaw te xam ne démb maanaam métti woon na trop gars di jaayante waaw kon tey bu demee ba demee nii rek waaw moo loolu ñun daal fii lañ am te bëggee dawal ko sereet yi bu baax bëggee waa Massa Ndiaram bu baax a baax. waa mooy garage sereet. waaw fii mooy Massa Ndiaram garage laa defee lépp. waa waaw Banlieusard mais tamit dañoo am naqar. yow tey boo ma gisee ni ma toogee nii sax nga xam ne Bou Siteu ak mafia bi ni nga xam ne tey dañoo am dañoo am naqar bu metti waaw koo xam te ne maanaam kuñ ku jege woon si ñun la. xam nga doon ku noon xam nga doon koo xam te ne ndeysaan jàmbaar la woon. bilaay tey mu génn àdduna. laa berki démb la woon sarax si parce que yaa ku si mel ne pap pap bëy di saan waaye di ko jaal gaa yëpp wër na Serigne Touba Mbacke koo xam ndeysaan di ko jaale siini bu baax a baax comme nit ñi doon fekkee nii sama émission bi bi mu fi ñëwoon école ba mu ngi fa woon émission bépp may def nii lay toogee ma loolu nekk borom baax waaw pap bëy di maa ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla xaare si àjjana firdawsi barke Serigne Touba di ko jaal Baye Fall yëpp xam nga tey maanaam kooku dafa bokkoon si ñun barke waa ne kon koo xam ku ma bëggoon la son sonn samay mbir waaw kooku ndeysaan damay xew la dara sax mu jël seretam xam nga yóbbu bagage yëpp jël fasam dem yoonam boo koy woo sax loolu lijjanti soo waxee mu ne la moo loolu barke Serigne Touba kon kooku tey bu ñu amee ku mel noonu mu ñu ñàkk ko pa Boy di waaw dañ koy ñaana bu baax yàlla xaare ko si àjjana fii daw di ko jaale waa Géejawaay bu baax a baax di ko jaale waa kon jaxaay bi ñëpp waaw boo limee rek da ngay juum maa ngi koy jaale waa koñ jaxaay bi ñëpp di ko ñaanal yàlla xaare ko si àjjana firdawsi di ko jaale Baye Fall yëpp nag waaw ñëpp képp ku si teewoon rek kontaan nañ si yow trop keroog bañ koy robi ji bàyyi ay junni doomu aadama yóbbu ay on super bilaay télé bi xat ba Pikine nga kon kooku maam raw na quoi yàlla na ko yàlla yërëm xaare ko si àjjana firdawsi ayca allahuma amin comme ni mu ko waxee nee naa la Ousmane kooku mooy Bou Siteu macha allah moom suma xarit la suma frère la suma lépp la wax dëgg yàlla ah, dañ koy ñaanal jàmm bu baax a baaxam nee naa la acti banlieue ni muy doxee comme nii rek lay doxee spécial lamb di naa ne maa leen raw am ci yu ma nekkoon moo tax ma a feeñ mais di leen jéggal bu baax ba di leen mooy sa lamb bi passé préparation xam waaw mooy combat waaw préparation bi rek muy nekkoon mu nekk combat boo xam combat bu metti la xam nga ndax parce que boo xoolee combat bi demoon nañ bay wàcc jour yi ñu aj ko le 25 juillet bi xam nga mu metti woon trop ñu ñëwaat di ko waajaat le 10 octobre bi dimanche bi ma ñëw tey yàlla may ma ndam mu leeral kon tey man si li ma nekk dama ko bëgg te gis mu yàqoo jooy métti laa jooy. waaw sa jooy ñëpp moom la ñuy waxtaan. xam nga kon tey man lamb ji dafa nekkoon lamb joo xam te nii sama lamb la. Mhm. te parce sa lamb yàqu ngay jooy gars yi dem mu nekk foofu di reetaan kontaan. Mhm. te gis nga bañ bañ bërewaatee affaire appareil leer na. mais est ce que nekkul gëm-gëm bi nga amoon ka ni yow jour combat bi koy daañu depuis benn instant combat bi est ce que nekkul loolu nga démarré woon ci combat bi ba ni mu essayé. waaw maanaam gëm-gëm boobu moo nekk si man rek man Malick Ndiaye xamoon naa ne combat bu demoon fii ba man naa ko jàpp rek barke Serigne waa naa ko yor ba jàpp ko rek te gis nga dama ko éliminer dóor ko dóori met daan ko waaw moo loolu. ayca bu Siteu bu ñëwee ci préparation combat bi da nga ñëw ci biir làmb ji arbitre na. sa diggante Malick Ndiaye. Mhm. Malick Ndiaye cokkaas na waaw sama diggante maa moom dana piip xam nga ma def def ay déplacement xam nga moom mooy loolu parewul. xam nga dafa ay déplacement maa ñëw sax di ko jam góos. su ma ko jamee góos mu xaw a méb di xaanju. mais ñemewul xeexul ñemewul xeex ak man. barke yaa doon xaanju nit di def ay business rek. arbitre piip ngay dugg loo xam soo yoon nekkul di. mais tamit nee na mi ñeme non oh, ñeme naa xeeb te Bazaga da nga cokkaas yow tamit di daw. waaw te Bazaga maanaam dama xool sama ñaari combat yi ma ñàkk yëpp yëpp ay parax parax moo ma ko yàqal man su ma taxawee tee sama bopp rek bëre barke Serigne Touba Mbaa ku képp ku ma taxaw si géew ma lay daan wallaahi. xam nga maa nekkoon koo xam ne dama daan bëree public di yàq sama lamb tey jii loolu yëpp deñ naa ba pare waa ma dañ ta yónni tey yàqamte wuñ ma combat bii nii waaw dañ maa yónni tey yàqamte wuñ ma xam rek. ma doon waale ay jàpp ma ne si ay ndam laa jóge dama jàpp ne ba maa la ñaa ngi bëre maa ne dama jàpp sama combat bi par dama ko ñàkkoon man noonu laa jàppee combat xam nga rek maanaam nekkatul adversaire waaw man moo loolu man waaw man samay supporter dañoo ragal défaite moo tax heure ma demee lamb rek damay teey def ndànk mhm. waaw comme lu ma la wax waa géej waa dañ maa yóon tey yàqamte wuñ ma kon waruma ñëw di yàqamte di parax-parax yàq sama lamb mhm, mhm, noonu la demee moo tax ma ñëw bëree ko noonu jàpp ko xam nga xëcc ko mu ñëw fii la ko kii dóor ko plaqué mu mu mu mu kii ma yokk ko mu julli tëdd xam nga rek waaw ma yëg si kawam konko nag ne du ma noonu quoi. mais Bou Siteu ñoo ñëw ci kong bi dañu gis combat dafa bëri woon tension parce que Malick Ndiaye li mu ci wax dafa bëri Bou Siteu aussi li mu ci wax dafa bëri combat bi yéen ñaar seen digg dafa amoon haine bu nekkoon seen biir wala. waaw te parce que moom moo ne combat bi la. te combat nante moom nekkul combat ne combat bi combat lan combat bi combat nantey la comme moom moom moo ne combat la combat bi man ko combat bi combat wagay la moo tax combat bi combat bi maanaam li si am xama combat maa maa ne yow dund lu de ay diin yaa fu ne daja nañ fa fu ne daja nañ fa si combat parce que la dëkk ma dëkk géejawaay waaw ba pare moom day daw peloton yan saa di ñëw géejawaay di daw peloton si ñoo xam ne nii mooy loolu waaw di jéem daw peloton si ay nit ñoo xam ne sumay mag lañ mhm. ay Aliou Mbaam chaque jour mu ñëw fii marché bees mhm. pour moom yooyu na mun na ceeñ sama xel bàyyi ma ko sax xel lu ne daj na ko si combat bi combat dafa metti yónn na sax ay nit sama kër na ay policier lañ doon indi ay miine di ko miine foofu xam nga yooyu yëpp def na ko si combat bi ma wax la ko tey. waaw bu si te yow yaa gis ñooñu. te parce que dañ maa woo ne ma ay alkaati ñoo fi ñëw nekk na Malick Ndiaye la ak ay gàngooram. te pourtant mën na nekk ay alkaati nag. du ñu toog nañ plateau signature mu ma ko nii ne ma xam naa ba seen kër ñëw naa ba seen kër. même Malick moom moo fa ñëw di miime foofu. moom la te bañ ma woowee may ñëw mu daw. ma ñëw ak sama gàngoor yor ay arme man sama gaal moo loolu de man ay <laughs> man mooy loolu de man sama gaal kenn du fa ñëwee noonu. xanaa guddi la woon. ay vingt heures. heure boo xam te ne xam na ne buusi de heure bi entraînement lay nekk mu jékki-jékki fu xam ne xool ba xam te ne nekk moo fa mu ñëw fa ne dafay miine. gars yi woo ma ne ma ay am na ñu fi ñëw ne ay policiers la yow la ñuy seet may ñëw ñu ñu génn daw ndagara maa lañ jaay woon waaw. Ah. ay te ñu gis Bou Siteu nga daan Malick Ndiaye pare konk mais Bou Siteu konk bi lan moo tax nga konk yow daan nga ba pare arbitre yëkkati arbitre yow xam nga ne yaa daan nga jékki-jékki ko konk yow il faut nga ñamal ko rek mu jugaale moom waaw ma ñamal ko da parce li mu doon wax la ah. Malick Ndiaye ku ko ku ku ko bàyyi mu ne man daf mooy linjaa lu toll ni Bou Siteu moom xamuma boo xam ne àdduna la national waaw koo xam te ne man la sam waaye ñëw moo loolu am lu ma def si làmb teel a marqué samay ànd bëreet fekk ay ndaanaan bëreet fekk ñu ko gën a doon wagga téeméeri junni yoon daan leen tey man ma ñëw bay dem bay bëreeg moom mu ne ma daf damay linjaa mu fëgg taabul wax na kii wóor naa dama koy linjaa xam nga rek moo loolu te dëggalul boppam baar ar bi ne pii fa la nekk di dugg loo xam lu si yoonam nekkul. moom tey newoon na bu Siteu du mbëru dara. waaw gis nañ ko nii rek la mu jaab ñu dem. amul lu mu waxul nee na sax ginaaru kookali laa lu ne maanaam wax na ma ko xas na ma façon xas bu nekk xam nga rek man dama doon bëre waale loolu jàppal ko si ranking boo xamante ne nii nag barke alxuraan maa dama ko mooy sax wóor na Serigne Touba xanaa xam manière bi ma ko daanee sax ba tey neexu ma. ban manière moo la gënoon a neex. barke Serigne Touba kooku dama ko bëggoon bàyyi mu dama ko bëggoon naa sama coup moom bu ko daloon si kanam barke Serigne leneen la ñuy wax. pourtant dóor nga ko ay coup pourquoi coup ko. non ba tey nag sama droite dalu ko. laa cokkaas góos rek laa bii ni dalu ko bii bu ko daloon ba tey wàcc naa parce que Serigne Touba Mbacke nga rek maanaam combat bi dafa bëri ma nekk dafa nekk nit koo xam dafa bëri wax yow daan Bou Siteu loolu laa jëm. mais nag wax na wax nga lu ko raw nag. combat moom koo jaay moom macha allah côté Malick Ndiaye muy sa côté. non man li may wax sama gëm-gëm laay waxee man damay wax loo xamante nii dafa nekk si man nekk ma fii di wax loo xamante at bi ne piip may nekk foofu di dugg loo xam di yablu nit ñi xam nga man lépp lu ma wax mu koy jëfee te man chaque combat lépp lu ma wax mu koy jëfee naa la jàpp rek te gis nga ba ma ko jàppee ma ko daan jël bu rëy jéggi ko dem sama yoon. après nga daan ko konk. waaw ma daan ko ba pare du ma ko bàyyee noonu te parce que li mu doon wax si combat bi doon wax si combat bi la mais kong bi dafa mel ni dafa def buzz ndax man gis nga daan gis naa gis nga daan bër mbéj ko wala nga daan bër dóor ko mais nga daan bër na ko rog yow ñamal nga ko daal ma yow. daan nga ko ñamal ko. naa ko rek may ko benn rang kongu góos. mais kong bi pour lan la woon. sa parce que lan la kongu lan la. Malick Ndiaye maanaam li ma doon wax si combat moom métti ay ginaaru kokkali. nan la man ginaar kooku ginaar kooku li boo xam la daan ba koŋ la tamit xam nga rek loolu moom met si combat bi. li mu li si doon wax ay ginaaru kookali la booy bi maanaam li mu doon wax yéen ma ko jàppaloon rankiñ kooku mënu ma ko woon daan noon rek jug dem non non il faut que ko def il faut que ma ñamal ko ñamal boo xam ne waa koñam sax bu ñu toogee di seetaan lamb ji sax danga xam ne Bou Siteu mi dafa éliminer Malick Ndiaye loolu rek moom ma dugaloon ci lamb ji. mais kooku après lan moo la ci fekk dara fekku la dara fekku ma si. après maa ngi dégg naan kong bi sax am na ñu ci bëri ñoo xam ne kong bi da leen a neex damay rob ñu naan maa leen jaay mes yaa bu si tam mes si wàcc kong bi na ko gis tey ñaar nit di foo nii sax kong nit non kong bi moom gars yi ñu ngi koy tiktok buusi de moo fi génnee kong bi kon xam nga loolu ay slogan la man maa kong bi kong bi nag gars yi ñu ngi koy tiktok de man mii sax barki dem am na ku ma kong man nag lan la mu ne ma buusi da day kongaa waaw dama la ko kong dafa xew kong dafa xew xanaa xam boo waxee nii sax léegi ma ñamal la benn kong kong dafa xew déggoo ma de ayaa ah. waaw moo loolu man man man damay man moo loolu am na yeneen ak yeneen yuy ñëw parce que Serigne Touba Mbacke te dinaa fi daanaan mbë mbër koloj ko koloj moom nu muy demee sa bët laay loqati <laughs> mbaa ñun barke bu si da daan daan mbër konko ñu ñëwaat nga ne boo maatee ko xuma adversaire ban ngay tasee nag waaye nag xam naa loolu problème lay doon. waaw wala gars yi nañ yaru rek am taalibe. non nañ yaru rek nañ bañ a génn di wax si si wax ji lamb ji wax ju bëri rek. man gars dañ laa yeb ay ay ko ay mbëru kookali la ak du màgg ak du yaram gars yi loolu lay wax. boo xoolee nëb ba ma ko daane man mënu ma daan mbër nii ma daan ba pare rek jug bàyyi la non non xoolal ni ma ko defoon. gam kii bu ndaw bér Dembo Ndiaye ba ma ko daane nan laa ko def dama ko daan xàcc ku xam ne kuu bu ko dalee day dee ma téye ko fa xàcc rek bàyyi. mais pourquoi nga xàcce pare arrêté ko da nga ko yërëmoon wala. non xam ne maanaam mooy loolu booy dañuy nekk si internet bi di mbarajo rek di wax di wax loo xam te ne yow yow ki ngay waxal sax mm. mala sam waay li mu coupable yow coupable loo ko mm-hmm. waaw imagine toi ngay bëre bu sete di mbarajo rek te bu la jàppee. di taasu di wax rek topp réseaux sociaux yi takk te doo génn sa koñ rek ngay yem di mbarajo mm-hmm. te ñeme woo tappen nga doo mës a génn sa koñ sa koñ da ngay nekk di wax rek mm-hmm. nee dañuy wax rek. booy bu ma ci tànc di nga xam ne lépp dëgg la. Mm-hmm. barki Serigne Touba Mbacké cangal la. bu Siteu nga daan Malick Ndiaye 37 fu mu nekk victoire boo xamante ne macha allah amu lenn lu ñuy lam lamlaame lu leer naa ñu ab dem na benn instant sax moom mu ne moom victoire bi leer waaw maanaam moom day saltal xam nga victoire bu leer boo xam ne yow doo jël sa juróomi junni dem CNG def recours. est-ce que deful recours tamit. non deful xalaatu ko sax. Ah. yaay Malick seetaan combat bi gis ni gis combat bi mu leer. Mm-hmm. gis bu Siteu daan ko jëlee bu leer dina jël 25 000 di ko maye di ko may waa CNG. Mm-hmm. defu ko mais mun na génne site internet di dégg ko muy salté sama victoire ne ne daanu ma ko mais loolu du ma si wax sama coupe mu ngi si man daan naa maa ngi feete sama victoire waaw te lii sax du dara feet bi jeex na waaw. def daa rëy de daan ba rek konkole moom bu rëy nga ko war a feete. moo loolu feete nañ def nañ tànn beer xam nga cant moo des. waaw moo loolu cant yi pour Baye Fall la mm-hmm. waaw moo loolu yaa ma gën a xam noonu la rek wóor naa lii du dara. man doo tay bëreegu ma ma dara ci làmb. ma def neuf komba sept victoire ñaari défaite waaw benn bi sax leerul. Ousmane mu nekk xale boo xamante ni macha allah ndaanaan la muy Bou Siteu wax dëgg yàlla bëri woon na bu yàggoon moom Malick Ndiaye 37 fu mu daan ko jël boo xam ne macha allah daan ko ba pare konko moo fi def nag lu fi kenn deful macha allah wax dëgg yàlla di ko moom moom naan la waaye xale la. ayca Bou Siteu nga daan Malick Ndiaye fu Bou Siteu kan moo nekk si xelam koo xam ne tey bu ko ko waxoon pour ñoom ñaar dinañ bëgg. waaw ki nekk sama xel ak muy maanaam Malick kii Tafa Gueye Tarabaxa waaw numéro 2. waaw maanaam tey jii fan man foofu laa foofu laa yegg te parce que ku daan Malick Ndiaye ñooñu ñu la mën a bañ. waaw ay ondu la fu yi nii war nañ mën a ñëw ñu bëre. Ada Fass Tafa Mbër ku fa daan pare naa pour bëre ak yow. bu Siteu bu xam nga yow sama xarit sama xarit ba si lan man dama am lu nekk si man man déggoo man du ma laaj ko xam ne su ma jàppee daf may lem man dama lay damay laaj ñoo xam ne buñ bëree ma ma ma corriger leen wan leen ni ñoom bëri ñuy bëre setul. mais yow laaj Moustapha Gueye numéro 2 Tarabaxa ndax yow ñu bëri nañ Moustapha la nga ñëw di laaj doo jël sa xale tàng yi bëri waaw déggoo lu ma si lim bi dama lay wax ñi nga xam ne maanaam bokk si lim bi Tafa Gueye kooku dama am gëm-gëm ni comme ni ma amee gëm-gëm ba laaj Malick Ndiaye ñëpp na am bu da ngay xaru gëm-gëm boobu noonu moo nekk si man tam Tafa Gueye 2 gis naa ko bu baax xam naa ne kii buñ bëree dama koy duma duma yu métti daan ko barke Serigne Touba dama lay wax li nga xam moo nekk si man ak jàmbaar man du ma tapet waaw jàmbaar bi nekk si man man foofu laay waxee ak yow waa man kooku buñ bëree woon dama koy jàpp defaral ko daan ko dem sama yoon. Apa Tafa Gueye numéro 2 ban bër nga cité waat koo xam ne ko da nga bëree Ada daan pare naa pour bëree ak yow ku daan wala ku daan ku daanu soxlawu ma la te parce que man boo xoolee man samay victoire tey jii li ma seen victoire nga lim samay victoire ñoom kenn amagu sept victoire yu mat te man damaa am man damaa a marqué sama empreinte parce que dama yàgg ci làmb man 2016 laa dugg ci làmb mais maanaam buy xeeb bu mu yor bu mu yor a jiitu moo njëkk a jiitu ci làmb. moo njëkk a maam génération la ak Ada ko njëkk a dugg si làmb ba muy ñëw place Fallou Ndiaye xaw ñëw place Fallou Ndiaye naan ko Bou Siteu laa soxla ma ñëw fa takk ay seret ñëw ba ravin ginnaaw ravin mu gis ma ak seret yi rek ruux xam nga rek delloowaat avancé fët fët parce que Serigne Touba Mbacké xam nga tey jii fu Fass fu mu demee ba may laaj ñu dem ba tey mu ngi bëre may bëre di muy daan may daan mais maanaam bu xool ay maas bu xool ci maas bu xool ci palmarès booy maa la gën a riche palmarès téeméeri junni yoon waaw Tapha Mbeur Ada boobu ku fa daan pare naa pour bëre yow fii ci acte banlieue. waaw fii laa koy waxee mu leer dimanche Tafa Gueye waaw di wax na Dieye Sène xam nga ay ñam ñoom Fallou Ndiaye ñoom ñëpp promoteur waa rent Dakar ndax maa ngi gis seen deuxième journée bi rek Zarko ak Mbaye Guy gi waaw Mbaye Guy gi moom tapet moo tax mu dem jël Zarko. waaw dafa ragal dafa laa ragal ah Mbaye Guy gi xoolal ay victoire nga xool samay victoire. seen combat da doon ne. parce que Serigne Touba ay Mbaye Guy gi Mbaye Guy gi du dërëm du dërëm tapet la. <laughs> yëpp la de. maa ngi Mbaye Gouye Gui ranking bu mag a mag la. waaw sama diggante maa ngi moom muy maanaam na bàyyi Aziz Ndiaye. xam nga muy bàyyi Aziz Ndiaye di ko ñaan xaalis chaque jour. na bàyyi loolu Aziz sama Aziz Ndiaye la xam nga fu mu dégg Aziz dem na fa mu jël set place fekk fa Aziz Ndiaye di photo ak moom naan sama papa Aziz Ndiaye da Aziz Ndiaye du sa papa. bu nekkee papaam nag. ay Mbaye Gouye kañ la xam Aziz ah, sama Aziz Ndiaye la loolu sama patron. wu. non c'est que mbëri dañoo mën affaire la daan benn combat rek fekk ñaar ñaar ñoo xam ñu ngi doon ànd nga ñëw fexe ba bëgg leen tàqalee te parce que mooy loolu. waaye yow looy xoole ba foqati Aziz Ndiaye ci yow. mooy xam nga rek. dama ne ngay xoole ba mu foqati Aziz Ndiaye ci yow. non xooloo ma sax te parce que xam rek bërëb maanaam dafa war a gëm boppam. daa nee na Aziz Ndiaye la xaritam la waayam la. non Aziz Ndiaye sama sama Aziz Ndiaye la man Aziz Ndiaye mayu ma si nit ngay ëppal. ku dul Balla Gaye 2 mayu ma si keneen ngay ñëw di ëppal di di di ko di kottanteeg moom xam nga yooyu tamit dafa ëpp. boo ñëwee fekk mbay guy gi kott Aziz Ndiaye noo koy def. ay misil laa koy dóor barke Serigne Touba Mbacke mbay guy gi fanee la luwee benn oto xam nga moom bëlewu maan la fanee la luwee oto di wër naan Aziz Ndiaye moom may oto Aziz Ndiaye soxlawu lool si moom del bàyyi ba mu may la nga wax mais dem luwee sa oto rek ñaan Aziz moom may oto te mayu la oto. Ah, mën na ko ma lay baax mbay guy gi kalandoo sax yoru ko. te bu ma la tàncee di nga xam ne lépp dëgg la naa la fekk ba Dakar vidé le missile lu leer laa la wax. ah saa yi saa yi maa nekk en top. Eh, saa yi maa nekk en top. bëre bi combat bu rëy daan jël bu rëy waaw loolu xam nga loolu yombul barke Serigne Ba Mbacke loolu yombul. barke Alxuraan Ousmane di leen wax saa su nekk nee naa la fii ci site bu mag bi nga xam mooy Actubanli nee na Aya moo ne ci micro bi waaye Ousmane moo ci li nga xamante ne mooy cadrage bi Bou Siteu dañu gis tey euh, dañu gis tey yow sa benn problème boo xam ne sa digganteeg Laurent problème bi bari sa digganteeg Laurent lan mooy problème aa ah, ayaa boo yow boo bëgguma nga fi doon tudd mais il faut ma tudd ko parce que xam lu tax après dañu fecc woowu bay ñu ne mbokk mi dañoo ñoom dañu fay ñëwoon sa kër non ñëw sama kër dañ fay ñëwoon sa koñ sama koñ non sama géej waaye ah. waaw Massa Sam la suñu benn ñaankat bu fa nekk bu baax Bekop Bekop di leen ñaanal bu baax di la wax ne yàlla na la yàlla fi yàlla na la fi yàlla yàggal Bekop Njaago waaw maanaam kooku ba may soog a dugg ci làmb ba léegi mu ñaanal mais tey jii musuma yëkkati benn dërëm fay ko ko damay ñëw mu yëkkati xaalisam sarax sax dafa may jox xaalis na ma jëndal sa sarax Bécob Ndiago waaw di ñaanal Bécob Bécob yàlla na la fi yàlla yàggal xam nga Bécob maa ngi koy bu baax waaw côté Massa Sam di bëggee waa Massa Sam ba mafia bi dawkat sereet yi ñoom xalifa xam nga di ñaanal xalifa Rambo xam nga yàlla yàlla yàlla xaare ko si daw firdawsi waa Massa Sam maa ngi bëggee di bëggee ñoom Ousmane Noreyni Baye Fall xam di bëggee ñoom Bamba xam nga mooy loolu boo limee ñoom Maam Modou xam nga rek boo limee da ngay jub mafia bi nekk Sam sama gars yi dawal ko sereer yi ñoo la jàppale ci combat moo tax ba su ay dawal ko sereer lañ comme ñun ñi maanaam géej waaye dafa yaatu te dañ ñoo gën a am xaalis ma dund ak ñoom loo xamante ne nii tey ndeysaan xam nga di bëggee waa ma Sam bu baax a baax a baax waaw maanaam géej waaye dafa yaatu foofu sax sama koñ la waaw noonu demee nag Bou Siteu ñëwul ma sa digganteeg Laurent lan mooy seen problème yéen ñaar Laurent day laa soxla bu Siteu tapet la ku ma ko jox dama koy duma daan ko sa diggante euh, Laurent lan mooy problème dëggalu ma la ayaa man booy bu ko ma wax si moom da parce que yow nit koo xam te yaa ngi soog a bëree tamit ah. xam nga def benn daan rek yow xoolal xool léegi day dañuy waxtaan maanaam yow imagine toi Laurent avant muy bëree musoo mhm. ko dégg mu def sorti wax si man mais imagine toi maa moom ñu bokk na mu daan ma daan rek mhm. mu taq pot yi di wër woo na ma sax téléphone saaga man ndey mais loolu duma ci wax mais loolu après la loolu beneen dossier bu ñuy lijjante parce que loolu dafa ma metti man booyoo du ma moroomam ba may woo téléphone di ma saaga naan ma maa joxe numéro am xam nga waaw man man yooyu du ma sax wax loolu après beneen dossier la. après déggoon nañ ko mu ne sa booy yi ñoo koy woo téléphone sa booy yi yow yow sa booy ñoo koy woo téléphone. non non du loolu ñëwaat na fii gàlla bekop njaago fi ma wax na maa ko doon maa sàmm sama gaay mu xam nga man man fii la am maa sa njaaram wu dugg na foofu xaw ma ñan la fa àndaloon booy dóor ko foofu ambis 4 xam nga kalaata leen kalaata yu métti ñu daw xam nga mu woo ma téléphone ne man maa ko boole ay nit. kon kon kooku maanaam dafa war a teey man man nitu ñit ñi laa kon Laurent buy génn di wax si man dafa war a teey te que yow yaa ngi dem beneen secteur boo xam Bou Siteu dëkku fa sax nga daje fa ay nitu Bou Siteu ñu dund la business du taxaw fenn ba wax ko kon booy bu na yaru booy Liss Ndiago moo ko ay ndam fuuf magam Liss Ndiago musul génn wax si man lu ñaaw xam nga kon Laurent booy boobu noonu na yaru waa nitu seytaana la nag xam nga yow mosoo ma gis may waxee nii. booy woon nitu seytaan na bàyyi muy def. mais mais mais booy daan rek génn takkal teg teg ma soog. yow dafa xew xew de daan muy wax tontu ma ko yow ko koo xam ne yow yaa ngi def ay sorti di wax ba nga bëree ba léegi yaa ngi def sorti booy di wax ci man booy woo nga ma téléphone saaga ma du ma sa morom booy bi booy xam nga maanaam booy xam nga rek ay ayaa billaay walaay booy dafa ëppal. booy u seytaane laaj. ah mais dafa xew na parce que eh, dafa xew na dafa bëre daan. damaa bëre daan mu fa am ñoom bu ñu lijjanti lu ma am jàmm gan. Uh-huh. booy bu mu lijjanti man li ma am jàmm gan man jàmm gan dama fa am ay mboox mu nekk démb. nee na jàmm gan moo la fa ëppale. moom ëppale jàmm gan na jël. waaw mais man man man li ma am jàmm moom bu mu lijjanti. kon booy buy def sorte na def sorte na ma tëkkul na man laaj fu ko neex am na si droit laaj ma mais bu mu dépassé yow gis nga lu muy wax si réseaux sociaux yi mais ne man moromam laa te man xamaluma dara ah, mu ngi wax sax naan ay raqam fii lay sëy jàmm gan ma man ma am raq buy sëy jàmm nee yow sa raq jàmm gan lay sëy soriwul dara gaa ngi ni man benn raq bu soxna raq bi jigéen am raq buy sëy te fii lay sëy géejawaay xam nga kon booy mu ngi wax di ma sosal mu ngi wax. ci léegi pourquoi nag mu ne da nga am rakk buy sëy ma di ma so moo xamul ma dara mu ngi wër di yàq sama dara di ma wax yow ay wax yu ñaaw ku nekk di ma woo naa ma bul ko tontu mais booy du ma ko bugguma ko tontu mais na arrêté. mais il faut tamit nga leeral tamit. non na arrêté quoi te parce que man man du ma ko def dara de. te parce que mu ngi nii ñëw marché rek ay sama samay nit tënc ko fa dund ko business loolu du taxaw ko ba wax ko kon booy na arrêté te parce mun na dem feneen gars yi samay nit tënc ko te mu ngi wax ay wax yoo xam te nii lii bokkul ci làmb waaw maanaam nañ dund sport te parce que yi muy ñor di nii mun na si xam nga xanaa moom bëggul carrière. mais que tamit nee waxul pour neexal rek. ay waxul pour neexal man xam naa li ma lay wax bu baax booy woon dañ koy jéem pompe pompé. kan koy pompé. xaw ma ku koy pompé mais ki koy pompé mu ngi koy sànq. mais yow man man li ma am jàmm gan loolu moom moo moom ma xam sax Liss Ndiago fu ñu daje danaa ma yow sama deret nga. te parce que waaw man bu Siteu boo nee deretu Géejawaay la bu la neexee boole si deretu jàmm gën la. mais pourquoi Liss Ndiago fu mu na yow deretam nga mais rakk ji Laurent fu mu la tamit commencé coow histoire yow. mais dama xamul kat man booyoo bëre benn combat rek takk ma takk yi nag. mais parce que da ngeen a bokk journée nag moom da bëre daan mu bëre daan. mais ku bëre neuf combat ak ku kuy soog a bëre daan rek ah, man wax yu ñaaw yi may wax si internet bi loolu laa bëggul. booy xam nga mun a dóor kenn nag ku si bëgg ñu jotee man la sax loolu à part lu ñu li jënd mais moom si boppam te dinaa dem ba jàmm gan kalaame ko. koo koy kalaame. maanaam du du nekkul ma nag moom de damay bañ mu génn feneen ñi ñi gaañ ko def ko business ñu yaakaar ne Bou Siteu la te parce que daf ma woo rek ne ma dama ko boole ak ay nit. te loolu Massa Samb bii la xewee te man dëkkuma Massa Samb. mais da nga ko boole ay man fan laa ko boole ay nit man gaa ngi nii man fii laa am xam nga maanaam dama damay bañ mu gaañ boppam. te parce que ngay génn di wax si Bou Siteu loo xam ne nga dem beneen koñ ay nit jàpp la foofu def la loo xam te ne doo taxaw mukk ba wax ko maanaam damay bañ maanaam na carrière am dama bëgg carrière am mu avancé quoi waaw bëgguma maanaam lu ñaaw ndax mu ngi may taqal ñu ngi ko def li koy def mu woo ma téléphone na man maa ko boole ak ay nit te man fii laa am géej waay laa am. moom moo directement jot la. directement la ma woo loolu def naa émission ma kii Imporo waaw Imporo Medoune Diouf seet si na ma sama jour tànn biir ma wax ci mais géej waay sax ñu bëri na ma gaan baal di génn tontu booy boobu te parce que du ma du yàgg moom mais maanaam wax yi may wax dafa ëpp. na ma laaj garaawul mais bu mu dugg sama biir privé di ma sosol te parce que soskat la ndax nee na rek xaw ma asaar lañ daje ma ñëw ba si moom neen neen nee na maa ñëw ba si moom ne leen lépp lu ma leen defoon baal ma leen samay supporter ñooy ay seytaane ñoo may jaxase xoolal loolu nga baalu leen samay na nga baalu leen ak daal lépp lu defoon rek baal nee na nee moom dama daje ak ñoom stade xam nga li mu wax mu ngi si internet ma dama koy dégloo mais tamit ngay déglu koo xamante ni mu lay sosol la waxal loo xamante amul tey bëgg ma jaxase waa jàmm ngeen bëgg ma jaxase ak waa géejawaay man Ronaldinho dinaa taxaw ma naan ko lépp loola ma def ñoom lan lañ ma def man lan laa leen def ba ma ba may taxaw Ronaldinho naan ay lépp loola lépp lu ma leen defoon baal leen ma samay supporters ñooy ay seytaane xoolal lool yow imagine toi wax yooyu noonu tey ji sama yenn supporters mun nañ ko dégg yaakaan loolu lu am la te amul maanaam bëgg bërëg buusi da warul génn nga koy wax loo xam di ko sosol di ko wax lu ñaaw bëgg ma jaxase ak waa jàmm gën man li ma am jàmm gën ñoom buñ ko lijjanti waaw maanaam li ma am jàmm gën loolu ñoom li ñu am géejawaay man lijjantiwu ma ko xam nga dama leen di ñaanal li ñu am fii mu gën a yokk mais da ngaa xew nag moo tax mu bëgg a bëri ak du man ak moom parce que Serigne Touba Mbacke ah, da ngaa xew de wax dëgg yàlla da ngaa na arrêté ah, mais du arrêté il wax ba bëri bu arrêté wul day gaañ boppam yow da ngaa wax ba bëri ak Malick Ndiaye dana wax nag ba bëri ak yow Boussita non bu arrêté wul day gaañ boppam muy gaañee boppam ah, yow yaa ngi wax si Boussita dem beneen koñ ay nitu Bou Siteu jàpp la def la action te doo taxaw mu ko ba wax ko ba pare ngay taxaw ne bandi nga bandi boo xam ne ni yow ay dangaa xam nga tapet nga boo ñemewul. parce na yow ginaaru nee na yow doo màgg doo def dara yëpp waaw amul lu ma waxul wax yu façon wax bu ñaaw bu nekk wax na ma ko mais yooyu duma si tontu xam nga man yooyu duma si tontu barke Serigne Touba Mbacke waaw dama koy wax rek xam nga maanaam bu fekkee mbër la bëgg na carrière lamb waaw mooy loolu mais am na yéen yoo xam ne jaru mu si dugg te parce que am loo xam bu si duggee rek xam nga rek day ëpp loxo te day gaañ day gaañ boppam barke Serigne Touba Mbacké mais Bou xale la te mi ngi ci yoonu làmb def na benn combat benn victoire moom Laurent tey boo amoon loo koy wax lan lay doon kan si ne Laurent def na benn combat benn victoire comme xale la mi ngi ci làmb tey boo amoon loo koy wax tey lan lay doon waaw Laurent li ma wax rek muy maanaam man du ma bëgg sax du ma ndax parce que géej waaye am na ñoo xam ne sax bu dañ naan bu bul génn di tontu kooku mais tontu moo ko de dama koy affectir waaw ah, di wax ne gars yi tontu moo ko na mais dama koy affectir quoi damay bañ mu gaañ boppam te parce que ngay génn di wax si Bou Siteu loo xam ne tey jii ni yow am na secteur yoo xam ne ñeme woo fa teg sa tànk mais loolu tamit loolu bokkul ci làmb Laurent ñëpp a ko bëgg te parce que nu muy wax dama koy seetaan sax di reetaan ay sement fou de ça xam nga man loolu dama koy seetaan di soulager sama jabar da koy seetaan di kontaan waaw man am naa jabar kon moom loolu bu mu ko yàq bu mu dugal si boppam loo eh, boppam problème no man ayaa naa soxna nag de. Ah, xanaa loolu yëgu ma ko kon. non xam naa yëgoo ko nekkul lu ñuy toog di koy wax si réseaux sociaux mais dama am soxna man kilifa laa xam nga man kilifa laa xam nga rek moo tax ayaa man dama daa am feneen fu ma teg sama bët ci lamb. am yoo xam ne taal waratoo cee nekk da nga am soxna. lamb ñëw ma si lamb di tooñ ay nit. man dama ñëw si lamb pour jaayante pour jéem a jëndal sama yaay kër. pourquoi nag nit ñi naan la bu Siteu mbëru comédien la mbëru mbëru mbëru TikTok la mbëru mbëru whatsapp la. mbëru TikTok bi moom xam nga ko man bu Siteu man boo xoolee victoire yi ma am xam ne bu Siteu du comédien. te parce que déglu ma damaa ñëw si lamb pour bëgg a jëndal sama yaay kër jëndal sama papa kër dama sax loolu mooy sama priorité si lamb loolu ma dugal ci lamb bëgg a jàppale samay gaan waaw samay doomu nday gars yi bëgg dama dama ñaan yàlla xam nga niveau bi changé ma tollaat beneen niveau xam nga di sant Daouda Mbow bu baax. depuis loolu bi nga daane ba tey gars yi ñu ngi lay woo di la combat. waaw woo na ma. yàkkal la wax. ma kii wax Tafa Gueye 2 mais nee na ma Tafa Gueye 2 day waaw man man dama am ay mbokku njaago di bëggee sama mbokku njaago yi bu baax. waaw man dama man fii ay njaago rek ñoo may supporté. waaw moo gën a moo tax dañoo war a dund jàmm dañoo war a dund jàmm mais imagine toi violence tey ngay wax si nit koo xam di bëgg a indi sa bopp problème. man bu ko wëree ko waaw man bëgguma lu ñaaw wër na Serigne Touba Mbacke xam rek na rafet. waaw du ma ko tontu xam di sant sama gaay yëpp nag di sant Baye Fall gaay yi xam nga wër na yàlla ñii lu ma xewle dañ ciy sonn. xam nga di leen sant bu baax ay ñoom Abdallah gaay yi ñoom Omar Dieye xam sama mafia bi ñoom Mbaye Dagal wër na seen mais nag di bëggee tamit Daouda Mbaw iPhone bi la may. iPhone jaay naa ko dem si guddi. mais lu tax nga jaay ko. ana Alibari Alibari laa jaay iPhone dem si guddi. mais imagine toi yoruma naa tàq. si la waa bor mbaa mee woo bor rek. waaj ñaari combat benn combat nga waaj ko si ñaari yoon. financé xaalis am si ay bor. iPhone bi ma moyoon jaay naa ko. waaw mooy loo fay si bëri na Serigne Touba xam nga dafa dafa métti wër na yàlla tey jii sama caméra bi moo la ko tijjiloon da ngay ree da ngay yuuxu non dama koy tijji wan ko gis nga ah, instant yi ah, xool ah, yoruma dara gis nga eh. mu ngi nii eh. dara nekku si man yoruma am na ñoo xam ne damay takk lii sax ñu naan Bou Siteu ay million la yor ma million xam nga yoruma dara maa ngi nii jeexal naa takk barke Serigne Touba dara nekk côté bi ñu xool fii fii da mooy loolu eh, daa am kii bu fa nekk non taw xam nga mooy loolu di sant Daouda ma international sama daaw Demba international may na la xaalis bu bari ci làmb. waaw ma xaalis bëri ku si Kuyaate boo xoolee lii ma sol nii yëpp ay moyens bëri la jëkk a yëkkati jox ma ko Seexu Kuyaate. Mhm. tey jii nii tey jii léegi ay moyens laay sol yu mool xam nga di sant Seexu Kuyaate di sant Zara Jabaram mhm. di ko nuyu waa di bëggee Alaaji Naar bu baax di bëggee Modou Faye ku si mel ni Alioune Sall Junior di bëggee tamit Mor Ware mhm. ki fi remplacé Baydi Sey di ñaanal Baydi Sey yàlla xaare ko si àjjanay fiir daw benn grand bu baax mooy dëkk fii ku ci mel ni kii Abdou Sall waaw sama koñ la dëkk da ciy jàpp ak ku ci mel ni kii Aline Naar Kër Naar yi ñooñu dañ ciy jàpp bu baax a baax di sant tamit ku ci mel ni Yoro waaw Yoro bu kër Momadja waaw Momadja maa ngi koy sant bu baax di bëggee tamit Yoro Yoro xaal bu bëri la mu may sama jour tànn ber xam nga di bëggee gars yi jàpp ci combat bi yëpp nag di sant sama gars yëpp Baye Fall yi parce seen boo limee rek da ngay juum mais maa ngi bëggee gars yëpp parce que Serigne Touba bëgg dawkat sare looy wax tey acte baale mi nga xamante nee naa sa préparation combat ñëwoon na ba école ba fekk waxtaan ak yow lan ko koy wax tey mi nga xam dafa defaat déplacement ba mu sori ñëwaat ci li nga xam mooy lamb ji nga wees waaw ci lamb ji muy maanaam kontante te yow su may wax bii nekk mooy suñu trois émissions xaw ma moo loolu waaw suñu trois émissions waaw gis nga te moo loolu moo tax yow ba nga jàppee ba léegi bàyyi woo moo loolu barke Serigne Touba yow moom dama lay ñaan ayaa yow suma jigéen nga waaw yow suma jigéen nga barke Serigne Touba yow jaamu si yow rek waaw di bëggee gars di bëggee waa diaspora bu baax a baax di bëggee koo xam te nag kenn la si kuy muy Omar Baas waaw Omar Baas maa koy sant bu baax di bëggee Aline Bathie Seras di wax ne Rona nag Aline Bathie Seras mu ngi ci site bu mag bi nga xam mooy Actu Banlieue. waaw Actu Banlieue après ah, gars yi pay a ñi may bëggee léegi dafa bëri ku si mel sëfoor camion yi dañ may bëggee bu baax a baax di sëfoor camion yi bu baax. am na ku nekk sama koñ ku la bëgg nag xam naa loolu man ku ma bëgg rek a ma sonal parce que Serigne Touba ma di bëggee waa Safatu Lavage ku si mel ne Cekki Cekki suma doom yaay Cheikh Jali Thior di bëggee góor a mu ngi ba Kolobaan xaas bëri la ma Cheikh Jali Thior moom boole ak moom ak ku ci mel ne Ahmed Lo xam nga di bëggee tamit Bibi waaw ak Cekki maa ngi leen bu baax ak Jogo sama doomu yaay waaw maa kontaan nga daal kontaan naa trop ay yaa dama kontaan parce que Serigne Touba ayca ñëwoon fi nga xamante ni mooy Géejawaay sa si fi xale boo xam ne bëri woon na bu yàggul contre moom Malick Ndiaye 37 fu mu daan ko konko am na benn booy boo xam ne moo koy laaj muy Laurent gis nga leeral yi mu ci leeral bu Siteu nee na moom ak Laurent du combat waxtaan wi yaakaar naa dégg ngeen ko di jéggalu ñëpp nag Ousmane di ñaanal ñëpp jàmm di wax ñëpp kontaan naa ci ñëpp ndax durant bi ma liggéeyul un mois bi ñëpp ma doon woo naan ma ayaa lan moo xew dara xewul woon xam ci lu ma nekkoon rek mais jaajëfal naa Ousmane a baax nee naa yow baax yow la bi nga xamante ni Awa yow daal doxala ba kenn Ibra maa koy bëggee baax di ko ñaanal jàmm moom tamit ah ndeysaan Amady moom tamit suma frère la suma xarit la maa koy ziar bu baax a baax Lamp Fall bëgg naa ci yow macha allah ndax yow nee lu ma sol yow kontaan naa ci yow bu baax a baax jaajëfal ñëpp Ousmane di remercier jërë ngeen jëf ba beneen yoon incha allah ci beneen numéro spécial laamu jërëjëf bu Siteu. waaw kontaan naa trop nag barke Serigne Touba dégg nga gaa yëpp.